weeru août merci Mouhamed Ba ci revue de presse yi am na solo noonu la ñuy daal di duggee ci waxtaan bi dooree ko ak lexew xew fële ci yaraax muy ab attentat terroriste boo xam ne si nii dal na ci kaw ab bus Tata ligne 65 am na ñaari nit yoo xam ne si nii ñàkk nañ seen bakkan ñoo xam ne si nii jëlee nañ ci ay gaañu gaañu mu nekk mbir moo xam ne si nii lu doy waar la juróom-ñaari ci ay nit yu muur seeni kanam maanaam ak encagoulé wu ñoo daal di songu bus boobu la dóor ci ay cocktail molotov bu bus daal di tàkk. jëppeet euh, ni ma ko waxee ñaar ñoo xam ne si ni euh, daal dinañu ci euh, ñàkk seen bakkanam ñoo xam si nii gaañu nañu ci le ministre de l' intérieur Antoine Diome dem na nag fi nga xamante ni fa la mbir ma xewee ngir nemmeeku maanaam def constat ci ci mbir moom mi la moom nag la mu wax mooy que ni lii moom jëfi terroriste dëgg la te état bi dina def le tout pour daal di traquer ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def ki nga xamante ni moom moo di chauffeuru bus bi moom daal dinay expliquer na mbir ya demee mu jàpp ne moom dafa jékki-jékki rek gis ñi ay nit yoo xam ne si nii dañoo muur seen ay kanam daal di ñëw songu oto bi taxaw ci kanam yor ay xeer ñi ci des daal di euh, wax ak moom ba jokkante moom ay saaga sax soog dóor li nga xamante ni moom moo di euh, cocktail molotov bi ca biir noonu la oto ba daal di tàkkee ba jeex ba li am yëpp am ci muy ñaari nit yoo xam ne si nii. Euh, daal di nañu ci euh, ñàkk seen euh, bakkan Moustapha acte boo nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ ni c'est un c'est un acte terroriste ci jamono joo xam ne si nii wala jamono yooyu ñu weesu am ministre de l'intérieur sax doon wax lu jëm ci lu nu mel que ni am na ñoo xam ne si nii ñoom ñoo ñu rax ba tuddoon sax wàllum terroriste tey ñu dund li nu li nu mel ci jamono joo xam ne si tamit réew mi mi ngi ci benn situation boo xam ne si nii situation bu tendue la ak la. l'emprisonnement de Ousmane Sonko ak la dissolution euh, de son parti Pastef naka nga jàngale naka nga jàngate tey euh, acte bi nga xamante ni euh, wala incident bi nga xamante ni am na fële ca Yaraax. waaw li fa am d'abord li si jiitu mooy dañuy ñaawlu li nga xamante ne moo fa am lépp loo xamante ne am na bañ ne dañ ne am na te bakkan rocce rek li war képp koo xam ne nit ga mooy jaale ñi nga xamante ne. Eh, dañ ne dañ see ñàkk seen bakken ñi nga xam ne dañ ci am ay blessure ñu ñaan yàlla mu delloo si leen seen sago ba blessure yooyu daal di wér si jàmm ak salaam maintenant mais dafa am loo xamante ne dafa am ci attaque boobu nga xamante ne moo am fële ca yaraax eh, li li ko waral mooy attaque bi dafa am mais après ay interrogation yu bëri jóg mm. maanaam ay doute commencé di juddu di judd ndax attaque bi réellement am na est-ce que c'est pas orchestré orchestré est que est-ce que est-ce que premier problème bi muy posé ci côté boobu problème de crédibilité donc bu ñu demee ba ñu tudd ne attaque am na ci réew mi mu am ñoo xam ne dañuy poser ay questions et ay questions yoo xam ne dañ koy étayer parfois ak ay arguments yoo xamante ne dana jafee teggi problème de crédibilité am na ci diggante boo xamante ne warutoo naa am te loolu li ko waral mooy nuyowul woon tey mais nuyoo woon na depuis ba police defee conférence de presse am ba génne ci ay images yoo xamante ne amoon na ay erreur kon ma jàpp na kon ñi ngi ci pant boo xamante ne euh, pant bu doy waar la buñ ci bàyyiwul xel parce que ñooñu nga xamante te ñoo suñu sécurité bu ñu demee ba bu waxee mu am ñenn ñoo xam ne dañuy oser di ko teggi wala di indi argument yeneen di ko di ko di ko di ko ci teg parfois argument yooyu du neex a du naqaree dandal problème de crédibilité dafay poser beneen mbir am na te acte terroriste lañ wax waaw acte terroriste la mais est-ce que am nañu ay terroriste question bu am solo la acte bi am démb niñ ko waxee ni mu amee bu dee noonu la amee acte terroriste la parce que mënoo ko qualifier neneen terroriste mooy attaqué koo xam ne dafa ko dara terroriste mooy dugg ci benn jumaa wala dugg fenn kalaatal ko dugg ci benn église kalaatal ko dugg feneen tasaare ko parce que d'accord ak ñoom philosophie d'accord ak ñoom terroriste mooy gis benn bus yi dem mu jël benn bomb dugg ko ci bus bi bus bi kalaate bu dee noonu la amee wii ak terroriste la mais est-ce que am nañ ay terroriste foofu la wax ji nekk ak terroriste li ci boo ko masaan dégg da ngay dégg après nga jàpp ne am hmm? non moom ak terroriste moom terroriste koy def. moom laa lay posé nii ma bokk na ci benn li koy li koy wane mooy il faut que mu am kiñ ne terroriste la mu am benn courant bi mu basé benn idéologie bu mu rangé wu. Mhm. jii li xew ni bu doon Mali la xewee. di nga dégg ñu ne la waa Ansaarudin réclamé nañ ko ñoom ñoo les défenseurs de la religion ba nga dégg ñu ne la benn branche alqaida ñoo koy réclamé waa AQMI alqaida au maghreb islamique dañ koy réclamé wala nga dégg ñu ne la waa Boko Haram dañ koy réclamé ñoom ñu nekk nga xam ne si ci ci Nigéria la ñu demee la ñuy la ñuy intervenir di nga dégg ku génn si quelques minutes après wala quelques ab ni ñoo ko revendiqué mais nekkuñu si cadre figure boobu kon beneen beneen beneen dimension la ñu nekk actuellement boo nee terrorisme benn boo nee terroriste agir na te amul ko revendiqué problème am na ngay terroriste am na ñëpp bokk dàq ko amul kenn ku taxaw ne lii ñii ñoo tax ñii ñoo ko parce que tëkku woon nañ par def nañ li Pastef bi nga xamante ne am na ñoom sa fa lañ koy jëm orienté génne nañ communiqué ñaawlu ko kon boo nee terroriste am na kan moo am intérêt pour poser acte boobu loolu benn mbir la nañ wër acte bi kan moom am pour poser que je pense que bu ñu jàppee ki am intérêt pour poser acte boobu rek dinañ xam euh, acte terrorisme bi fan la féetee beneen mbir problème crédibilité bi ñu doon wax dafa posé léegi nii foofu laa bëgg a dellusiwaat ils ont ñu pousser ko ba enquête bi wane détails yi gën a ndaw ci bus bi ak mbir mi naka la demee sinon bu ñu ko deful leneen lu fi amaat musiba lay doon parce que musiba dana fi am nit ñi duñ ko gëm loolu mooy problème bi gën a mag problème bi gën a fondam fondamental pour man mooy muy pousser enquête bi lépp ñu becc ko teg ko ci ëtt bi bu ñu ko tegee ci ëtt bi ñëpp xam ne lii nii la demee lii nii la demee lii nii demee parce que bu fekkente ne accident dafa am. mu am ñaar ñu si faatu nañu fexe ba a faatu seen i mbokk wax kii ne sama yaay la wala kii ne sama tante kii ne sama sœur la ñu xam ne nit du toog di di di di kàccal koo xam ne du ay waajur loolu benn mbir la beneen mbir blessé ya nekkoon ci bus ba nañu fexe ba ñu wax loo leen ñu wax mbir mi na ma ne ñu am seen ay version parce que version chauffeur bi kese doyul chauffeur bi kese la ñu dégg bien vrai que am na ay journalistes yoo xam ne après déplacé woon nañ ba mbir mi amee dem sur les mais chauffeur bi lañ fa fekk Antoine Diome ba mu fa demee chauffeur bi la fa fekkaat receveur bi gisuñu ko wax donc dañoo am intérêt ñu leeral askan wi ci mbir mi naka la demee complètement parce que il y va de la sécurité publique sécurité publique la kon enquête bi dañu wax nañu fexe teg loxo ñi nga xamante ne dañ ne ak acte terroriste am na nañ leen teg loxo nañ fexe ba leeral nit ñi ci condition yi nga xamante ne noonu la amee loolu bu ñu ko defee dinañ marqué benn coup boo xamante ne prochainement lépp lu fi amaat ku fi nekk di saboté mbaa ngay ñaawal sax dañaa leen sawaay rek leen parce que gis nañ la fi amoon doon waaye dem nañ ba béccali teg ko ci kaw bu ñu ko dajalee nii maasaale ko puus amul arrestation amul lenn amul lenn amul lenn je pense que dina doon loo xamante ni problème lay doon ci kanam parce que fi ñu toll nii comme ni ñu ko waxee dëkk bi ñëpp tiit mais tamit ñoom ñi nga xam ne ñoo suñu sécurité ñoo ñu war a rassurer te rassure euh, assurance yooyu noonu nag li koy indi bokk na ci ay preuve yu leer ay mbir yu palpable Mohamed yow naka nga jàngatee euh, acte terroriste bi nga xamante ni jàpp leen ni euh, moo am fële ci Yarax ci ab bus ligne 65 ba am ñaari nit yoo xam ne si ni ñàkk nañ seen bakkan coow li bëri na depuis démb ba léegi. waaw d'abord bu dee ni ñu ko présenté de manière officielle noonu la demee ñu ngi koy naxarlu di ma sawu ñi ñu ñi ñu wax ne ñoom lañ ñoo si ñàkk seen bakkan di ma sow aussi ñi nga xamante ñoo si amee ay gaañu gaañu euh, bon xam naa ne nag xaw na compliqué parce que dina jur interrogation yu bëri après bi information bi jibee mais tamit euh, xaw na louche comme comme ni ñu koy waxee parce que aussi xibaar jib première interprétation wala ni ñu joxee xibaar bi rek mooy takk attaque terroriste Eh, ñu xam ak ni ko Moustapha expliqué nii ñiy def attaque terroriste anam bi ñu koy defee ak anam bi ñu koy déroulé et eh, beneen bi ci des est-ce que mës nañu gis eh, yenn attaque terroriste yi xëy rek am ci biir capitale man loolu daf mooy poser problème surtout fu mel ni yaraax nga xamante ne zone boobu euh, zone zone bu am sécurité la en tout cas parce que li ko wër euh, ñi fa yàgg di dem xam nañ ko donc ñu xëy xëy. tout d'un ñu ne yaraax la ñu song am na am am am na attaque terroriste donc mu mën a jur ay question yu bëri beneen bi ci des ñu ne ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan mais ana corps yooyu fan lañ leen acheminé est-ce que sur place amoon na sapeur pompier bu ñëw pour jël ay blessé parce que ñun dañu xëy rek bus bi tàkk na 17 heures par exemple 18h ñu gis ministre bi taxaw ana yi yóbbu nañ leen ba léegi man gisaguma fenn fu ñu identifier wala wax ne diw ak diw moo si ñàkk bakkanam déggoo aussi fu fenn benn sénégalais génn ne mbokkamkat ñàkk na ci bakkanam beneen bi si des aussi mu muy relever ay interrogation dafa am ay témoignages yoo xam ne boo dégloo chauffeur bi déglu ni Antoine Diome waxee déglu beneen maire bi nga xamante ne ñu ngi ko doon déglu sànq ni mu waxee dafa am ay incohérence yoo xamante ne am na ci biir parce que boo mënee boo mënee jël kii ñëw peut-être ne la deux personnes la scooter la ñu yor kële ñëw ne la sept personnes la kële ñëw ne la temps la kee ñëw ne la 37 euh, laa doon jël fekk 65 Malika laa jógee dafa am ay kii yoo xamante ne te bu mu ci lim rek nekkul boobu mooy itinéraire am donc loolu benn beneen problème la waxuma nag ko bañ a jël parce que mën na dagga dagga te ba benn kii mu jël ko incohérence yoo xamante ne mënul peeg nit ñi carrément beneen bi ci des aussi si témoignage yi ba tey naka lay bus di tàkkee ki ko taal am jotu mën a dugg ci biir ramasser ay téléphone nit kooku est-ce que la mosuñu gis fu terroriste songee ba pare di jël ay di def vol wala di sàcc loolu beneen beneen interrogation la beneen bi si des aussi euh, crédibilité Moustapha mu ngi koy souligner léegi mais Antoine Diome xam naa ne am na leneen léegi si Sénégal ba mu des crédibilité parce que koo te ne saa yoo waxee ñu weddi la saa yoo tegee kii euh, information génnee ko en que ministre de l' intérieur ku yor suñu kaaraange leneen lu ko mën a démentir génn tout d'un coup ko beneen bi si des aussi ñun lii tàmm nañ ko si ñoom parce que maa ngi koy fàttali avril 2021 bi Sall woote euh, xaw ma naka présidentielle pour l'emploi bi mu defoon fële SICAD gis nañ mise en scène yi fa amoon ñi fa demoon maa ngi leen di interpeller ci loolu ci anam bi ñu doon joxee kàddu ñi war a wax et que dañ ko waroon def de manière inopinée boo xamante ne peut-être ñiy wax doone xam mais après bu ñëmee ba si biir dañu xam ne dañu sélectionner seen propre nit pour ñu waxal leen loolu benn la donc genre bu amee ñu xëy presse bi génnee ñu si bëri en tout cas relais attaque terroriste attaque terroriste da naan mais ñii lan la ñu bëgg ak kan la ñuy waxal ak information fan la ko jëmee en tout cas du pour sénégalais beneen bi si des tamit mooy euh, sampoon naa ko sànq mooy nañu fexe ñu wan ñu koor yi ñu identifier leen ñi nga xamante ne aussi ñoo si amee ay gaañu gaañ ñu fexe ba xam ñan la booba dinañu gën a mën a peek askan wi mais xëy rek benn bis bu tàkk eh, ak information yi nga xamante ne ñeneen ñi génne nañ ko si am ñuy dem sax bay wax ne peut-être chauffeur bi doon wax ab policier la xàmmee nañ ko identifier nañ ko donc yónneen yëpp dafa bëri yoo xamante ne leeru ci bopp nit ñi beneen bi si des aussi ay manifestation yàgg nañ fi am mars 2021 moo gën a tàng juin bii ñu génn bokk na ci yu gën a tàng aussi mais mosuñu song sax bisu tataay ñoom dañu doon circuler convenablement mooy cible bi ñu tànn sax pour man du bu baax parce que bu doon tey par exemple ñu ne def nañ ko ci teer bi wala def nañ ko ci euh, D 3D yi Dakar dem di kii laa xel dina ko mën a nangu mais manifestation da doon fi am ba jàll boo duggee ci tata sax si ngay gën a nekk en sécurité que booy dox wala nga dugg si yeneen yeneen kii donc cible bi ñu tànn pour ne foofu lañ ko defee man day tey sama xel yeneen yeneen xibaar yi nga xamante ne génn na si aussi. Euh, mënuñu koo nangu et foofu dafay interpeller tout le temps taskatu xibaar yi rawatina ñun ñi nga xamante ne peut-être war nañu mën a am euh, abilité di vérifier yenn information yi bu fekkente ne amuñ euh, intention pour manipuler la masse parce que bu ñu joxee xibaar de manière officielle moom mooy lu jógee ci ministre de l'intérieur ñun war nañu mën a taxaw xool koor yi fan lañ leen yóbbu ñi si gaañu ñan la jéem a identifier am ay témoignages yoo xamante ne moom mooy gën a gën gën a approfondi jéem a jël bis bi du ñàkk am na ku si nekkoon koo xamante ne ay mbokkam war nañu mën a wax ak ñeneen ak ñeneen ñu ñu mën a jël jéem a collecter information bi jéem a identifier corps yi si am mais dañuy yem rek tout le temps ci li gouvernement bi bëgg askan wi dégg ko ñu euh, ñu relayer ko ci presse bi et c'est déplorable. c'est déplo c'est déplorable comme ni ko euh, Mouhamed waxee mais Moustapha euh, ci jamono yële ñu génn gisoon nañu Antoine Diome le ministre de l'intérieur génnoon fi wax que nii am na ñu ñu rax de force occultes. Eh, te eh, jamono ji ñu nekk tamit eh, ñu nekk ci benn situation boo xam ne si ni surtout ci sous sous région bi que ni daanaka dañu entouré par une ceinture de feu